alors euh, euh Thioro dañu lay bàyyi nga daal di ñu euh, jukkil actualité yi nga xamante ne moom fës ci réseaux sociaux yi ñu koy gën a commenté aussi. waaw Fatou comme comme ni ko waxee te ci kaw fàttali mooy ñun ñi tey ji am na ñenn ci population ñoo xam ne boo daggoon seen yaram xam nga nit ki boo daggee yaramam deret ci war a génn mais sunu njiit yi boo daggee seen yaram ndox ciy génn ndax kenn du ci gor donc ci loolu la ñuy daal di continuer daal di wax ci ki nga xam ne moom moo di policier boobu di Gabriel Bass ni ko Aliou Sow junjee sànq nga xam ne démb moo faat boppam ci ay yoo xam ne ni yoroon na ko daal di faat boppam fële nga xam ne moom moo di ca euh, ca Sandaga loolu nag daam ne jur euh, bu baax ay wax fi nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi ba ku ci nekk publier nga waaye tamit euh, daal di ngay commenter ba tax na tam am na ñu bari ñoo xam ne dañoo wax daal di ne rek ki nga xam ne moom moo di Gabriel Bass ànduloon ak xelam Euh, non seulement dafa nekkoon na koo xam ne homme de tenue la woon ba nekk ba nekk mooy que ànduloon ak xelam ñoom mënuñu concevoir ni ñu gisee ne ne noonu la faatee boppam métti métti gi mu métti ba tax ñu ñu daal di koy euh, classé foofu xëy na nag après enquête yi et dina génne li nga xam ne ni tey ji moom moo ciy dëgg gi ba tax na tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñenn ci internet yi daan nañ koy ñaanal bu baax suuf sedd ci kawam di di ñooy sunu njiit yi pour ñu bàyyi xel ci yu ni mel parce bu ñu demee ba nga xam ne ñun ñuy ñi yor suñu gi ñoom ñooy mën di di xaru ci mbedd mi di ko won population bi donc dëkk bi am na fu mu toll foo xam ne nii ragal jot na fa jot na fa bu baax a baax euh, ba tax na tam su fekkente ne kenn amu ci euh, lu ñuy sànni ci kàddu rek ñu daal di jàll ci leneen ci wàllu loo xam ne ni tam ñor na internet yi dañ koy dañ koy naxarlu rek ah lu mhm. metti la parce que homme de tenue bon je pense man boog si li ma fàttaliku dafa mel ni bi mooy première fois may gis ah homme de tenue bu ñëw ba ci foofu noonu lieu public mm-hmm. di fa xaru ci mm-hmm. anam ñu doy waar en tout cas ñu ngi koy ñaanal bu ko surtout mm-hmm. ko xaare àjjana bu baax pour ñu wane lan moo tax loolu noonu daal di am na euh, nga ko waxee rek euh, faatu ko ñu daal di bàyyi enquête bi ñu daal di li nga xam ne mooy seen liggéey ba tax na tam dañuy daal di jàll ci leneen loo xam ne yitteel na bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, population bi waaye nga xam ne ñoom ñoo di internautes ndax saa su ne da nga gis à chaque fois dañuy jël di dénoncer li nga xam ne moom moo di yenn ci arnaque yi nga xam ne ni dañ koy euh, gis ñu koy nemmeeku bi te xaalis yu bari lañ ci arnaque ñi nga xam ne nekk rek sa bopp doy na la la soxla ba tax na tam ci wàllu yi dañuy daal di wax ci li nga xam ne moom moo di wàllum éducation maanaam njàng meek njàngale mi parce que buñ demee ba njàng ak njàngale mënatul jariñ réew rek am na foo xam ne mi ngi fay sooxee ba tax na am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jóg ci seeni ci suuf di gort yeelu ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi nga xam ne tey ji ñoom lañ yaakaar ci réew mi mooy les soi-disant agences yi nga xam ne nii dañuy nax ay doomu aadama maanaam ay étudiants di leen euh, naxee ay li nga xam ne moom moo di euh, bourse euh, d'études dans des écoles de formation ay bourses entières lañ leen di wax des fois des fois ñu leen ay ay demi bourse ba tax na yooyu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci internet yi daal nañ ci souligner ay ay arnaques yoo xam ne ñu ngi ko ci dund bu baax a baax formation boo xam ne nii boo demee ba ci biir boo euh, sobee wala nga dof ba dugg ci biir école bi da ngay dem ba ci kanam nga xam ne euh, école bi mënoo faa jëlee benn diplôme boo xam ne mën na la mën na la servir dara après parce que du loo xam ne état da koy reconnaître wala mu am benn këyit boo xam ne day légal na tam beneen point bi ñu souligné mooy que nee nañ booy déposé li nga xam ne ni moom mooy euh, sa dossier ci agence boobu pour ñu utal la bourse entière wala demi bourse dañ lay laaj dix mille de dix mille francs yoo xam ne ni moom ngay dugal ñoom ci seen caisse ñu soog laa mën a jàllale sa dossier donc mu nekk loolu ba tey ñoom ñu jàppee ko après nañu expliqué ni muy ni ba tax na tam am na ñuy xam ne tam nee nañ bu ñu lay may bourse euh, entière dañ naan laan da ngay ñëw inscription bi 500000 francs lay doon nee na 500000 francs yooyu boo ko étalé ci ci année bi day fekk na loolu ngay fay chaque mois ci sa ci sa bourse boobu nga xam ne ni tey moom lañ lay wax donc may amatu fa euh, arnaque moo fa am ci bourse ci euh, diplôme boo xam ne après boo ko jotee du la du la du la jariñ dara ñëwee laaj la def eh, dencoo ko sa yaay denc ko sa papa denc ko nee na 10 eh, 000 yi nga xam ne moom nga njëkk a dugal pour caution pour euh, déposer sa kii 10 yooyu da koy daal di ñàkk ci saa si kon mel na ni bi ñu récupérer 10 10 000 xaalis la ñuy daal di am ci seen kees ba tax na tam su fekkente ne dañ ne la demi bourse la dañ naan laan euh, mensualité da ngay inscrire inscrire 150 000 francs mooy inscription bi mensualité comme ñu laaj la 30 000 francs mensualité 30 000 francs école de formation fii boo fi dem euh, même bu dul bourse demi bourse mën nga fay 30 000 francs par mois bu fekkente ne jàng rek nga moo la yëkkati ba tax na ñoom gisuñu ne loolu euh, lu baax la arnaque lañ ko jàppee ci ñoo ci koo xam ne nii dafa euh, commencé ci ci ci bas âge di jàng ba benn moment bi yow nga bëgg ko jël salfaañe njàngam googu daal di koy euh, teg ci yoon boo xam ne ni tey jii mérito wu ko ba tax na tam ñu ngi wax naan buñ lay en général bu ñu lay wax yi nga xam ne moom moo di bourse yooyu dañ lay wax ne dañ lay utal stage dañ la koy dañ la koy promettre nee na fekkente ne dangaa nangu ba dugg da ngay gis ne après benn stage duñ la ko duñ la ko utal bu ko defee avenir sa sa avenir après ñoom ñoo koy téye en main ci ngay nekk di yëg di wàcc kañ laay jot stage kañ laay di kañ laay fekk na yow deux ans nga perte nga ko wala benn trois ans boo xam ne yaa woon ci école de formation boobu ñàkk fa sa xaas ba pare te doo fa am diplôme moom nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi daal nañ koy euh, wane bu baax a baax li euh, nga xam ne moom la ñuy joxee bourse yooyu am na ci nag eh, eh, yenn ci bourse yoo xam ne nii xëy na mën naa jariñ ñenn ñu koy lii mais gisuñu fenn ci commentaire yi foo xam ne nee nañu boo demee ci bi wala nga dem ci ci ci formation bi nga duggee fa demi bourse wala bourse entière di nga am satisfaction ci li nga xam ne moom mooy sa njàng ëllëg si biir mu mën laa jëriñ ñoom daal ñoom ñëpp presque boo dee xool ci commentaire yi mm-hmm. étudiants dañoo dénoncé ba pare di wax ne nañ partager affaire yi parce que nii rek moom moo mën a jëriñ sénégalais yi ñu xool ana lan moo ñuy jàllale ana arnaque bi fan la nekk ana kan moo jiite te deful li ko war ñu koy ñu koy ñu koy tasaare di ko wasaare bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeunes itam di ci yeewwaale bu baax c'est vrai que c'est très important yii nii ñu koy tasaare mais je mhm. pense que arnaque bi arnaque bi ah fa dooree ci boppam mooy ca mhm. frais de dossier ya dix mille francs ngay dugal mhm. xamoo ndax dañ la dinañ la may bourse ou duñ la ko may mais ñu may la ak ñàkk la may yow dix mille francs yi bu xasee ba dugg dootul dootul génn man je pense que arnaque bi rek foofu la commencé ak ñaata étudiant ñuy dugal par jour euh, pour euh, def li nga xamante mooy demande pour am bourse peut-être man foofu dama koy parce que euh, de com agence la franchement ça n'a rien à ak école bi mhm. day signé partenariat ak ay école mhm. ñu jox ko euh, nombre de bourses boo xamante ni mën na koy joxe mhm. donc yow bu fekkee da nga ñëw pour man ma dem utali la faaw ma am lu ma ci am na liggéeyam mënum du foofu sax laay wax arnaque man fay jàpp voilà si c'est un boulot service la boo xam dama la koy defal nga fay ma mooy frais de dossier bi man fi may wax si arnaque bi mooy ces école yi nga xamante ni ñu ngi pulluler dans ce pays sans école yooyu loolu loolu mooy problème bi fan la ñu war a gën gën xool parce que yaa naa des centaines et chaque année yeneen tijji y a peu yoo xamante ne waxuma waxaguma ay waxu euh, CAMES mais mm-hmm. ENACSUP rek reconnaître mm-hmm. muy euh, état mm-hmm. ENAC bi nga xamante moom mooy dem xool école yooyu reconnaître leen kese amagul waxuma nag ñuy wax waxu ay euh, CAMES foofu la ñu war a xoolaat bu fekkee ni da nga bëgg a jël sept ans nga laajte. des gens qui ont déjà fait ces formations là. Mm-hmm. ñoom dinañ leen ni diw bii ak bii ak bii école. am nañ lii ak lii ak mm-hmm. lii. te boo xoolee presque école yooyu yëpp ñoom ñoo bokk li ñuy fay ah. même même même prix bi la même mensualité bi la bu ñu la mayee bourse li nga war a fay sànq yaa ngi koy tudd. Mm-hmm. Euh, bu ñu la mayee bourse tu dois t'inscrire à hauteur de deux cent trois cent mille francs. c'est c'est comme ça que ça se passe demi bourse cent cinquante mille francs c'est comme ça que ça se passe donc bu fekkee ni yow da nga ko bëgg. non mm-hmm. dama laaj ñi nga xam def nañ koo pare mm-hmm. laaj di nga am moins de risque pour tromper wu si loolu mm-hmm. leneen li moom mooy autorités yi war a xool loolu dañ jug si loolu parce que y de des de sénégalais yoo xam ne ñu ngi def formation yoo xam ne du leen jëmale fenn parce que duñ si jëlee benn diplôme boo xam ne am na jariñ stage yi ngay wax je pense que bëriwul école boo xamante wax ma sax euh, agence de école boo xamante ne moom moo lay uti jëlee stage bëriwu fi lenn lañ mën bind la lettre de jox la nga boole ko suñu see dem déposé yow yaay koy wër ci donc daa dañu war a teel am culture laaj teel a am culture am euh, curieux mhm. si yi nga xam ne moom lañ bëgg a def mhm. jege ñi nga xamante ne def nañ koo pare te éducation li ci war a wax dafa bëri maa ngi leer si si si si si si Walf euh, Walf Walf Net ki ngi di que à Tambacounda am na déficit du trois cent treize enseignants Baya trois mille plus de trois mille trois cent élèves yoo xamante ne si mhm. karo yi la ñuy toog quand je dis l'image ay élèves yoo xamante ne ñu ngi toog ci ay karo am toog di jàng am na fii sax biir université ah mu nekk loo xamante ni loolu aussi war nañ ko régler ci li nga xam ne mooy éducation coro ñu bàyyi la nga wóyal nañu mhm, loolu lépp wàllu coono rek waaye euh, ba tey faatu ko dañu daal di euh, jubal ci leneen wax ba tey ci wàllu arnaque bi nga xam ne ni tey ba tey ñu ngi koy nemmeeku muy nekk ci côté yëpp secteur boo dugg rek presque jamono ji nit ki du la def pour dimbali la du la def pour mais day def pour pour pour lekk sa xaalis ci anam ba mu ko bëggee ba tax na tam am na ci yeneen organisation yoo xam ne nii dañuy dañuy seen bànqaas euh, mën na nekk feneen Europe Asie fu mu mënti doon mais bu ñëwee fii dëkku Afrique yi dañuy daal di jàpp surtout jeunes yi jàpp leen di leen nax-nax yu métti yoo xam ne ni euh, jamono ji ndax gis nga lii nii euh, daan doon naa ko bëgg a indi daaw ma ma xalaataat ma ne naa bàyyi mais dafa nekk loo xam ne ga jeunes yi ñu ngi ci insister bu baax a baax ku xam fii CUNET. CUNET ñi cuinet ñëwal ci cuinet. <laughs> waaw kay ci ñoom laa bëgg a ñëw mais li ci gën a graaw actuellement euh, Fatou Ka mooy que ñi nga xam ni ñoom ñooy tey ñenn ñi ñenn ñi ñuy tudd ci biir réew mi. di jël cunette boobu. di ci di bu max nit yi. di def ay ay ay ay ay euh, di propagande daal di def ay ay sortie pour cunette di wax ci ñoom pour que na jeunes yi adhéré na ñeneen adhéré na ñeneen adhéré te ku ci nekk rek yow comme ni nga xamee tey ji cunette am na laal na la wala mu laal sa mbokk wala mu laal keneen ak keneen man mii di wax ak yéen damaa laal ba laalaatoo moo tax tey ji ma sañ a ñëw fii tey waa kay toog euh, toog di wax ba tax na ñi nga xam ne nii ñoom ñooy rek ñenn ci jeunesse bi génn nañ ci réseau sociaux daal di dénoncer du yàlla ak yonente bi 400000 ak 250000 ak 500000 jeunes yi ngeen di jël ngir yàlla delloo leen ko ku ci nekk sa dossier mi sur place woo leen ngeen jox delloo leen seen xaalis ndax xam nañ ne du ñu jëriñ dara du ñu euh, jëmale fenn euh, ci kaw rek gàttal euh, pour pour adhérer presque punet moom gis nga objet yi ñu lay jaay boo ñu ay objet mille francs bi ci gën a tuuti ba gën cee tuuti presque cent cinquante 250000 lañ lay wax te objet yoo xam ne ni après amul benn njariñ boo xam ne nii mën na la ko apporter ba tax na man nii sama mag moo dem jënd benn objet bu 400000. ñu ne ñu wax ko wax ko bañ ko waxee ba mu ñëwee wax ma laa ko ne demal nga laajte ba ba ñu liiwal la benn bout de papier lañ ko jox ne ko na dugg euh, internet mu tapé QNET genre ba ma tapé malheureusement ma xool xool xool affaire yi xaw maa doy ma ne ko waaw kon baax na mu daal di dugg mu dem ba ci yàgg ñu ne ko sa branche doxul donc da war a doxal sa branche il faut nga dugal keneen mm-hmm. ba mu ñëwee moom tam moom moo yëkkati xaalisam ci poche am daa ne dama la koy lebal dem jëndal la dem jënd ne tam objet bu 250 000 mm-hmm. maanaam moom suñu xaalis ne fa mm-hmm. li ma ci gën a naqari gën ma cee naqari lekk nañ sama xaalis ba pare di ma woo di ma woo ma dangay ngay toog ak sa jëkkër ba yenn heure ba semaine passée doo nga ci mujj ba yenn heure yi ñu toppale da la woo suba ñëwal ñëwal réunion ñëwal li ñëwal laa boo bloqué numéro bi beneen numéro dina la woo mm-hmm. arnaat boo xam ne ni man pour ma ñoom li li ñu bëgg mooy que naa indi keneen mm-hmm. waxuñu pour ma ñëw jël sama xaalis wala leneen de pour lu may dugalaat naa indi keneen mm-hmm. pour kooku ñëwaat dugalaat xaalisam branche bi di dem di dem di dem di dem te loo xam ne dañ lay dig ay ay ay ay jour ay ay na leen di ak kër xaalis ak lu ne leen di mais année yi ñu wax ne ci nga ko war a jot da nga cay topp dawa daw am naa cousin boo xam ne mi ngi ci biir instant bii nii dañ ko tënk mhm. fu yóbbu Côte d'Ivoire ak Maroc fu ne lañ koy yóbbu actuellement dërëm boo xam ne nii am na ko fa mënu ko faa jële mhm. mais naan nañu xelam naan xelam ba nga xam ne ni tey jii fu ñu ko woo dafay dem fu ñu te c'est à dénoncer nga baal ma coro dañ ngi toj dëkk bi xam naa boo moytu sax coro bëgg naa sax euh, semaine prochaine boo indiwaatee la toile ñu ñu développé si parce que instant bi waxtu bi moo ngi dab mënuñu cee def ay commentaires mais dina dinañ ci ñëwaat incha allah parce que euh, kuy nag ñi ngi bëgg a rey askan bi surtout jeunesse bi ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo rapidement waaw tàggatoo bu dul yem fii xanaa di joxee dig daje incha euh, xam ne nii du mm-hmm. ne leen jox dig daje ni ki mardi incha allah ñun aussi amoon nañ mbégte daal di lay euh, déglu nga indil ñu actualité yi nga xamante moo gën a fës ci réseaux sociaux yi ñu gën ko commenté di la jaajëfal di jaajëfal aussi yéen ñi nga xamante ni yéen a toogoon depuis matin di ñu seetaan